Thank you. may borom bay may borom bay li du ma ba wala yé doy ma bay li maas moo may wala yé ba mo maas ma lekk sama xar la yow ma xar ah lii nga ma jaay waaw léegi lu xawma voilà bonne question dafa ni kii daa jékki-jékki ni walax génn dem laa takk ndox guy indi xar xam naa leen ay ay ay ceddo ngeen da ngeen a yeewlu xar mi bu ñëwee mu toppaat leen xam naa leen. moo tax xëy na mu ñëw waaye ñàkk na ko xar mi lim fi lekk ak lim fi naan mënoo ma ko fay xar mi. allé baal xar nga doon ah, jël sa jël jël jël day yombee noonu jël sa xar day yombee noonu ah. ba jox ma trente. waaw. soo ko mënee nga dem soo ko mënul xamit

yow xoolal am na damay seet ah Idrissa Seck moom fii maa ko moom yem rek maa ma rey la ma fontoo ah, ngay xul léegi noonu waat li ngay fekk daa yebaate dama ko jaamu xar xar moo koy ñu xool ma ko ko de daa yebaate jàmm rek doful sax ñu ne dof bu xam waaye yow séeréer bi du mbokk du xarit jaay ma xar xàcc ko dagg vingt mille ma dese trente mille mi ngi nii trente mille trente mille franc ah te man sama jabar ji du ko nangu li mu yor mën na ma dimbali waaye du ko du ko def du ko nangu. daa laaj oh. sëñ jaane lan la eh waaye yow lan la nii góor gi xool booy bu ma tiim di jooy nii. góor gi sama xel dafa dem ci sama pap booy loolu ngay loolu ngay gañ déedéet lan la kon pour sa tuuti booy li ko war a xam nga lan la ah booy yaa ngi ñëw ni pour leen ndul yére bi nga sol lii kese doon sama pap bi muy génn àdduna yére bi ma fóot ko weer ko ñu were ko wax nga dëgg lii biñ ma koy jaay daa guus ki ko jaay da ko sàcc bettu góor hmm. wax ma ñaata nga ma koy jaay ma jëndaat jëre booy nag pour mu bañ a sori nekkuma fi di la wax ay naan la ay six yooyu de jaayee ma ko lool de ñaata nga am ma xool dafa am lu ma doon déposé ji mais jaral na moom ñeenti junni yi laa wax vingt mille nga mu xool mu doon trente mille soxla vingt baax ma xaar xaaral booy yow damay chimie di la ñaanal ñu ne foo foo jublu yàlla na fa yow yàlla jublu li ngay lijjanti yàlla sotti sa mbubu bàyyi am li nga doon ci sa baay moom nga ma doon xoolee di gañ jëlal sa mbubu bàyyi alma gañ ñoo góor gi tur bi naka man bàyyi laa tudd papa bàyyi lii nii nga seralee sama xol nii. Hmm. yal na yàlla tamit seralee sa xol noonu. amiin foo jublu yal na fa yu yaay jublu li jot yàlla sotti. amiin góor jërëjëf booy. alhamdulilah rabbil alamin. booy bi de matal na si waat. xaamu bi di jot doxaat xol wala mu am.